Ah, lii di jaaro bi loolu sekkere la ndax bari na ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ci ay tolof-tolof xamuñ lan moo leen ci dugal bari na ay doomu aadama yoo xam ne bañ juddoo ba léegi musuñu am bànneexu taraanga bari na ay doomu aadama yoo xam ne seen am-am du toog ci seeni loxo am na ñoo xam ne balaa ñuy am foofu sonn wala ñi nga xam ne seen yaakaar dafa faral di tas nga xam ne lépp loo xam ne ñu ngi la ko dig bés bu duggee ci sa nopp rek loolu moom pare wala nga am na ci ñoo xam ne doomu aadama yoo xam ne euh, seen alal dafay tasaaroo lépp lu ñu liggéey ba dara desul lu ñu am ci yaakaar rek xëy bés day xëy rek ñu tegg ne loola yàqu na wala nga nekk nit koo xam ne euh, da ngay nekk ci place dafa liggéey waaye doo fa toog am na ñoo xam ne buñ nekkee ci place dafa liggéey njëlbeen gi dañ leen di jox bopp waaye buñ demee tuuti rek nga gis ñu wan leen ginnaaw te duñ xam lan moo ko waral am na ci ñoo xam ne pour ñu am dara il faut ñu liggéey ba bëgg a dee te buñ ko amee duñ ko jëriñoo te loolu yëpp ay gàllankoori doomu aadama la yoo xam ne lenn li cat daf koy def lenn li rab daf koy def lenn li tëju daf koy def umu am na ñoo xam ne dañuy tëju total kenn mënut leen defal dara lu ñu gis wala lépp luñ jublu loola nit sax buñ ko yaakaaree ba dem ci moom sax bu ñu demee fekk ko nekk ci ay jafe-jafe wala sax ñu nekk nit ñoo xam ne yow boo leen diggee ne dinaa leen defal dara ci gannaaw boo leen ko diggee ci diggante bi balaa ngeen ko defar rek da nga gis ne yow say mbir dafay nekk ay kale kale loolu dafa am ci ay nitam.